barke ji gox la ci diwaanu Linguère ñaari waxtu ci bëccëg jot na fa mbokki asalaamaaleykum ak mbégte la ñu am di dellu si waat fii ci rajo Dunia Vision li gën a fës si bopp xibaar yi

ci pouvoir bi ay bor yu ñu yoral hôpital yi ak nag jafe-jafe ñu nemmeeku ci seen wàllum liggéey loolee moo nekk njàmbati kuréel gi ëmb ñi nga ñoo te ñooy yëngatu ci wàllum an mbalit ñu duppee leen waa UCG ñoom ci seen bopp nag jamono jii nii la ñu bëgg rek moo di ñu xoolaat seen po nekkin bu baax a baax waaye tamit taxawal leen ay barab yoo xam ni dañu mën a yor lépp jëm ci wàllum an mbalit ci biir réew mi. daañu tamit addu ci lu soxal wàllum coowal juróom-ñeent fukk ak ñeenti milliards yi kii di maître El Hadj moom ca boppam yëkkati na ay kaddu la mu xam ne rek moo di kii di Mamour Diallo defu ca dara moom daal seetal na ko ca witt moom ci boppam la mu xam ne rek moo di kii di usman Sonko soo gisee muy jël tuuma yooyu di ko teg ci ndoddali dafa bëgg rek fexe ba rek ëlëmal wala sax lëndëmal ñi nga xam ne ñoo nekk askan wi yeneen ci ay ponk buñ ko ci dëxëñee xibaar yi day buur ci kanam yaatal gi jërë ngeen jëf mbokk yi daleen ak jàmm ci seen jotaayu xibaaru digg njolloor gi dañ koy nag ubbee ak nañ leen ko junjee woon ca bopp xibaar ya wax ci lu soxal euh, kuréel gi nga xamante ne nii moom moo ëmb ñay an mbalit ci biir réew mi ñu duppee leen waa UCG ñoom nag jamono ji nii xam le nañu sonn nañu tay nañu la ko waral nag moo di la ñu bëgg moo di kilifa yi ngànk réew mi daal di nag addu ci seen pour nekkin ndax nag lu ñu duppee ay bor daal yu ñu nga xamante ni yore nañ ko hôpitaux yi bëgg nañu daal leen koy fay leen tamit li nga xamante ni seen njàmbat la moo di ñu fexe rek ba ubbi leen ay agence maanaam ay barab yoo xamante ne nii dañu gën a mën a amal seen liggéey ci anam yu mucc ayib seen njiit di woo ci turu Madani Si kii di suñu ndaw Omar Danso seen njiit moo doon taataan ay kàddam. dégg nañ ne yokkal nañ leen un milliard mais suñu leen yokkalee un milliard sur les 17 milliards mais travailleurs yi ñoom nee nañ ci 17 milliards yi li ci gën a doy waar mooy amuñu ci 3 milliards. fa xaalis ma la mu jëm donc tey foog ñu am li ñuy tuddee une nouvelle clé de nouvelle clé de répartition boobu nag mooy permettre tey ñu fay ay salaire yu décent ay salaires yu baax mais ngay gis di boo xam ne tey mun li may farale woon liggéey ci mbali kàttan la ak xel bu dal loo am am kàttan bu sa boo bu sa xel liggéey du barkeel donc soo gisee tey cette forte mobilisation là c'est parce que liggéeykat dañoo am yaakaar ci ñun suñu prise en charge médicale muy ci wàllu mutuelle de santé bi parce que ministère bi euh, subventionné nañu 20 millions pour que ñu fay déficit budgétaire mais 20 millions yooyu mun naa 38 millions yi moom la amee hôpitaux yi ak pharmacie yi loolu nag il fallait que ñu leeral ko loolu la moo andi benn coow bi ngeen dégg ci wàllu mutuel bi c'est parce que fan yi passé dañoo dem gis ay pharmacie yu commencé woon taxaw ak yenn hôpitaux parce que constaté nañ ne bor bi mi ngi doon yéeg beneen bi aussi ci wàllu ama Sénégal dossier ama Sénégal def na léegi 12 ans ay liggéeykat yu liggéey ba ba at bi ba jeexal dem retraite kenn fay leen seen pension man damay interpeller le président de la lay raam cañak ba la jëm waa ama Sénégal nag du ñu toj du ñu tuut du ñu yàq du ñu chantage waaye suñu àq ak suñu yelleef dañu ko fay pour que suñuy famille respecté ñu tey suñuy doom mënuñ ñoo respecté mënaani si njiital ankatu mbalit yi ñu duppee leen UCG bu ñu ci jógee dañuy nag wax ci lu soxal euh, coowal 94 milliards yi nga xamante ni kii di Ousmane Sonko moo ko yëkkati jël nag loole teg ko ci ndoddal kii di Mamour Diallo moom ci boppam nag wutub avocat avocat am kii di maître El Hadji Diouf démb jàkkaarloo nag taskatu xibaar ya moom ca boppam la mu yekkul kii di Ousmane Sonko dakaa fàtte moom ca boppam la mu xam ne rek moo di daal kii di Ousmane Sonko soo gisee mu yëkkati loole di ko teg ci ndoddal kii di. Mamour Diallo loolu yëpp da ko la ko tax a jóg rek moo di fexe ba rek ëlëmal wala sax réeral ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk askanu ko Sénégal moom ci boppam sax porox noonu na ca boobu leen daje di xam ne rek ni moom ci boppam daal jamono jii nii ka muy jàppal tànk moo di waa Benno Bokk Yaakaar suñu ndaw Penda ji teewoon na fa maître El Hadj Diouf joxoñ baaraamu tuuma kii di Ousmane Sonko dem na sax ba dippee ko ab manipulateur moom mi la nag teggi na bépp tuuma bu Ousmane Sonko teggoon ci kaw kii di Mamour jàlloo ci lu ñeel mbirum 94 milliards yi lée mu yokk ci ne nag bi lépp xaalis existé na te ñu ko moom moo di ay famille bu Sénégal fan am na benn euh, waay ngóor soosu ñuy Sonko te xaw a jaaxase mi Mamour Diallo dërëm encaissé wu ko du cëram ndax état buy dàmp ñi nga xam dafa nangu seen suuf ñoom la jox seen xaalis walla seen avocat moom mu dem fekk ñoo xam ni état bi war na leen fay quatre-vingt-quatorze milliards waroon na leen fay sa lépp loolu jaaree titre foncier gouverneur waxtaan ak ñoom bañ nangu. ñu wax leen 3 milliards ak nangam mu ne leen kiir ko dénk muy Tahirou Sarr kooku dafa yéex nangu leen mandat bi ci moom jox ma ko man Ousmane Sonko man ma fa doon liggéeyee xam naa mbiri dañ leen gaaw fay bu ñu leen fayee nag da damay jox 12 pour cent 12 pour cent yi boo ko xaymaa muy fukki milliards moom la bëggoon a ci élection yii. mu mel ni li ni ñu doon xaar moom mi la fësal na ko moom njiital parti bi di travailleurs du peuple PTP mu ngi xamle ni fas yéene na ànd ak benn Bokk Yaakaar ci élection présidentielle bi ñu dëgmal ñax fukki fa ak ñeent ci weeru février atum 2019 mu yokk ci ne nag moom du ab transhumant ndax ci parti boobee la musa bokk. ki nga xam ne moom dafa bëgg nax Sénégalais yi ba jël réew mi jaay ko moom bokkul ñu dem ñu éliminer par benn benn ba éliminer Madické Niang éliminer Issa Sall mu des mu des Macky Sall ak Idrissa Seck bu ñu relancer débat bi la Macky Sall génn gars yi ni Macky Sall ñun de ñun amuñ benn problème bu ñu ànd ak moom ndax ànd bi yëpp ànd nawle la ànd gor ñu ànd benn bokk kon nag ñu jàpp ni présidentielle bu wax am ñaax fukki fan ak ñeent ci weeru février kii di avocat bi nag tànn na kawam moom desetul dara kii di leaderu Pastef bi di wuyoo ci turu Ousmane Sonko ba noppi di ko ñaax ngir mu xoolaat doxalinam. soxna Penda Badji cant ak ngërëm ñeel na ko buñ ca jógee dañuy nag wax ci lu soxal ba tey ci wàllum euh, politique bi wax nag ci wàccaayu élection présidentielle yi ñu dëgmal mu mel ne nag saa yu ay élection dëgmale fii ci réew Sénégal moom dañuy nemmeeku rek ay fitna loole waral nag ñu nag nemmeeku ay kilifa ay collectivité jóg nag taxaw temm ñi nag ñu jóg moom mooy waa euh, ñi nga xam ñoom ñu duppee euh, lébu yi ñoom ci seen bopp jóg nañ ak seen kàngam fëgg taabal ya ñu bëgg moo di daal ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk waa kujje politique gi ak ñi nga xam ñoo nekk ci rek pouvoir bi ñu daal di nag andi ay leeral yoo xamante ni daal daañ ci mën a tënku mën a xam ne daal élection boo xamante ne du am benn sikki sàkka benn fitna musiba ay du ca am ñu teewlu ci suñu ndaw ba ñuy nasaka nocci Amadou Makhtar Ndiaye wutewu ko woon ginnaaw ba ñu amee njàkkare ci tension yu nemmeeku ci ëttu politique bi jamono ji grand serigne de Dakar jaraaf nday ji réew chef de village ñoom ñépp sekk nañu waxtaan ngir ñu am ay élection yu àndul ak benn fitna xool nañ ci zaahir xool ci baatin ni mën nañu wax ak réew mi nag xamal leen ni du nu nungu kenn kuy wax ni fii nanu ko taal yaa xam pouvoir nga nekk yaa xam opposition nga nekk mais nunguwuñu tey loolu duñu ko nungu suba duñu ko nungu tey Grand Serigne de Dakar nag jàpp na ni politiciens yi lim bu tuuti lañu ci biir askan bi ba pare bëgg yëngal réew mi mooy réew mi ñoo ko bokk politiciens yee ci gën a néewle ndax Sénégal bu fekkee dan dañ ñu ngi ci 14 millions ak 15 millions d' habitants tey jii fichier électoral bi tax ñuy xëccoo ko ŋaayoo àggul 6 millions xanaa kon ñoom ñoo fi gën a tuuti waaye ñu ëpp nag ci réew mi te toog ci seen i kër jàmm ak salaam lañu ñu bëgg. moom nag mu ngi artu imaam yi ñu yem ci diine bi te bañ bokk ci benn comité électoral. imaam waru garam mooy jullee jàng jaare jàngale jikko ju baax jàngale alxuraan wane fu ñuy jaar ba jaamu yàlla ak fu ñuy jaar ba mucc ci mbugalu yàlla loolu mooy réewlu imaam kon benn imaam bu ma leen dégg ci comité électoral bu ma leen gis say tàccu yëfu ñàkk fayda yooyu bu leen ko def mbootaayu lebu yi nag te nga xamante ni grand serigne de Dakar moo yore seen kàddu ñoo ngi woo politiciens yi ñu dalal xelu askan wi ba dara du tàkk ci réew mi te ñu bañ a indi fitna ci campagne bi ñu dëgmal Amadou Makhtar Ndiaye mu mel ni feneen nemmeeku nañ fa lu ni mel mu di nag association bi nga xamante ne nii moom lañ duppee association islamique pour servir le soufisme ñoom ci seen bopp ñoom tamit amal nañu ko ndaje woo askan wi woo tamit ñi nga xamante ni ñooy nga ci langue politique yi ngir rek jàmm ak salaam am ci élection yi nga xamante ne nii moom lañ dëgmal ba ñuy nasaka nocci suñu ndaw Abdoulaye Ndiaye moo nga fa woon. lu néew rek ñetti fan moo teree door lii di dagaan baatu askan wi ci jongante njiitu réew yi waxtu wi la teme nag jot ñu daal di rek yëkkati kàddu yu ñaax ginnaaw waa jàngu bi te jilee nag kuréel gi njaboote mbooleem ñu soxe ko ci këri diine yi ñuy wax AIS ñoom di dox ci wàllum tasawuf di soufisme daal di nag yëkkati seen kàddu biral ko ci way candidat yi bokk na ci nag ñu fas yéene fexe ba lépp luy jàmm ñu suuxat ko ab violence di fitna bañ ci am ngir démocratie bu sax ci Sénégal. ngi ñu wormaal loolu respecté lu mel noonu bëgguñu cee gis kenn ci ñoom muy wax waxi violence wala muy xiirtal ay militants ñu jëfe-jëfe violence nañ campagne ci jàmm ak salaam rombante jàmm ak salaam bis élection yi képp ku Sénégal yi fal ñu xam ne yow lañ tànn ñu joxaat réew mi ak ku manti doon ñi nga xam ne ñoom lañ dénk ñu saytu élection yi muy ñi nga xam ne xaw ma Sénat la ñuy tudde xaw ma ñan la ñu tuddee waaye ñi ngi leen woo ñoom ñi nga xam ne ñoom la réew mi doyloo ba jox leen ne leen saytu leen ñu élection yi mu tàmbali ci ministre de l'intérieur ak ña nga xam ne ñoo koy organiser ak ñoo koy gàddu ñoo ñu leen woo ne leen nañ làmbaayoo maanaam li ñu ma tuddee maanaam ak ak ak maanute donte loolee am na ci woy politique yi ñeneen nit am nañ ci seen wàlligar maanaam ay responsabilité askan bii di tànn ak it kilifay diine yi ba ci ñii di rek tas xabaar yi mooy ñu ngi woon nag sunu mbokk journaliste yi bu leen kenn jënd bu leen kenn maanaam maanaam ger bu leen kenn def lenn bu ñu defal kenn ngir programme ndanga ndax loolu day répercuté day deltuwaat ci askan wi bu dee bu dee lora ñun askan wi ñoo ko dundaat te ñoom sax mën nañu bokk ndax askan lañu bokk kon dañuy xamal population ne leen moo xam chrétien lañ moo xam musulman lañ xam ne leen politique du diine politique maanaam pour defar sa àdduna mu jag kese la bu fekkee nag violence dala caa nar a fekk wala wor wala xaste wala ŋàññee war ngaa xoolaat sa bopp xam ne ku la woo nga bañ ko wuyu kon sëriñ si mooy ñoom tamit wax dëgg yàlla war nañoo taxaw taxawaay boo xam ne taxawaayu askan wi lañuy faral ndax doomu aadama mënut ñàkk bañ a far fenn waaye dangay far ci dëgg nit boo faree ci dëgg donte ñëpp dañoo nekkoon ci neen yow nga far ci dëgg ñëpp di la ci tuumaal xamal ne dëgg mooy mujj mooy njëkk mooy mujj. ñu ci bëri nag soqi ko woon nañ ci kër kilifay diine yi ñoom ngir teew ci ndaje weccante alio bii dëgmal nag ci jàmm ci xew bu senegal muy ndaje bu ñu wootee ngir waajal lii di ab colloque international boo xamee nag kuréel gi ñu ngi koy dëgmal te di ci waxtaani ponk bi di wàllum taxawaayu nit ki nuñ mën a def ba booloo jàmm ak it dal mën a am ci Sénégal ñu war ko amal alxames ci ñaar fan ak benn ci weer février atum 2019 ba tey ñu wax ci wàllum politique wax nag ci lu soxal ñay jàppalaate tànk mu mel na nag kii di Moustapha Mbab Guirassy moom ci boppam démb xam na ne euh, wax na sax ki nga xam te ni moom la nar a jàppal tànk ci élection yi nga xam ni moom la ñu dëgmal ka mu nar a jàppal tànk moo di Idrissa Seck njiital réew mi moom ci boppam nag andi na ay leeral ci lan moo tax mu jël bile dogal ndax moom ci boppam la mu xam ne rek moo di daal soo gisee mu jël bile dogal kii di sa Seck kàngam la ci wàllum politique loolu nag moo waral moom ci boppam muy rek jox dig daje ñi nga xam te ni ay ñooñam lañ ñu wàccee bu ñu paree élection présidentielle 2019 suñu ndaw Chantal Badji ak Ndiaga Sow ñoo ñu nettali la fa xewoon. ginnaaw xalaat ak settantal bu yàgg lool Moustapha Maba Guirassy daal di nay jël dogal ngir fekki candidat bu parti réew mi bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom sa Seck mooy candidat bi gën miin wàllum gouvernement waaye itam lii di jëflanteeg diplomatie. choisir nag yombul da jiital loo xam ni yow yaakaar nga ni moo am. importance ci yilif ci gérer ñun ci sunu gis-gis expérience dafa am solo ñu jël nag suñu yaakaar yépp xool programme am xool jaar-jaaram xool déglu ko seetlu ko waxtaan suñu biir xool observer ñu ne ni Idrissa Seck le président Idrissa Seck su fekkee ni sax bokkatul ci échéance yi ñu jëm moom njiitu parti bii di SUD di xamle ni taxul mu dakkal ay activité politique am aux unitaires et aux militants de la coalition Guirassy 2019. Je les rassure qu'ils auront à l'occasion des législatives et des locales la possibilité de faire entendre la voix du centre politique que nous incarnons. Moustapha Guirassy di ñaawlu inauguration yu tegalanto yi nga xam ni moom la ñu nemmeeku jamono yi mu jàpp ni nguur gi li ñuy def amul benn solo te dañoo mel ni rekk ñu fàtte li nga xam ni mooy priorité yi. le building administratif yàq weesuwul nga dugal ay milliards yóbbu ko jam ñaajo après quelque temps après nga changé waat jëlaat sa gouvernement yëpp ni dootul fii léegi jam ñaajo la waaw pendant ce temps am nga ay hôpitaux yoo tëj président bu parti biir di Sénégal uni pour le développement xamle na ni ñu féete ci nguur gi ñëw nañu ngir sàkku mu jàppale leen waaye moom li ko gënal mooy garde li nga xam ni mooy dignité wam waaye itam respecter ay idéologie wam bu fekkee ni sax digganteem ak ña féete ci kujje gi yépp rafet na waaye moom moo taamu rekk soutenir candidat bi di sa Seck Chantal Badji bu dee ñeneen ñoo ngay nag wax wàllum politique di rek xamle ñan la ñuy jàppal tànk ñi moom la leen moo di ca mburu ma ñu yëngatu moo di nag kuréel gi ëmb ñu yëngatu wala sax lakk mburu ci biir réew ku Sénégal ñoom ci seen bopp la ñuy naxarlu moo di rek tekkaaral ga ñu nemmeeku su njiital réew yi réew mi ñoom ci seen bopp nag la ñu bëgg moo di kilifa yi addu ci seen jafe-jafe yooyu nga xam te ni moom la ñuy jànkonteel ci seen boobu leen daaje sax xam ne nañ rek daañu andi yeneen xeetu mburu waaye tamit di sàkku ci kilifa yi ñu daal di nag wàññi li nga xam xam te ne moom moo nekk njëgu saakub euh, farine bi ñoom seen bopp ñoo ngay xëpp sax di xam na ni bu kilifa yi àndewul ay saafara ci lu ni mel daañu gën a yëngu-yëngal ñu teewlu suñu ndaw kii di Adama Bitey ak Amil Diop moom wute woon ba ñuy amal seen yooyu le toogaanu ñaxtu mu yàgg lool ñuy fësal seeni jafe-jafe te kenn faalewu leen ñoom boulanger yi jàpp rek ni état bi te leen a considéré wul. dañoo toog boobu ba léegi di wax di expliquer kenn faalewuñu mais ñoom dañoo jàpp ni tekkiwuñ dara si dëkk bi on ne représente absolument rien nguur d' accord cautionné ni yéen jaaykatu far seen xeex bi dog na dog ma bëgg ngeen harmoniser seen prix maanaam ngeen yokk ko mais loolu pour lan ñaari mburu yu wute yu ñu naax di defar tukke woon ci assise yu ñu amaloon mu mel ni sax li ni mel bu ba léegi mënuñ ko defar. la ñu waxoon ci assis de la boulangerie ni kat am nañu sañ-sañ proposer askan bi yeneen façon mburu daanaka loolu sax am na ci boulangerie yu bëri ñu ngi koy doxal waaye matewu ko fépp ñu ni kot nag jafe-jafe yi ñu nekkee fi mu toll nii lañ ko proposer pour que mën a wàññi suñu charge ñun. courant beeg ndox meeg yooyu ba pare permettre askan bi mu am mburu qualité. ñoom nag ñu xamle ni bu leen nguur gi wuyuwul dinañ toog ab bés boo xamante ni mburu du am te loolee ci gox yépp lañ koy amal. taxawal nañu un plan d'action boo xam ne mënul ñàkk ah am na ay pour donner une am na ay proposition yu fi génn maanaam dañ ni buñ jógee fii chaque région. def journée sans pain après ñu def benn journée sans pain nationale loolu moom dañ ko bëgg dox bu ñu dégloo nag incha bu ñu dégloo ah mën nañ taxaw bu ñu dégloo suñu oreille ñu taxaw. cet gi wàññi njëgu farine gi ak yeneeni ponk doon li nga xamante ni moom lañu bëgg. boulanger yi nag di wax ni nam mën nañoo wëyal seenu xeex nam sax élection yi du leen ci génnee jaajëfal bu baax a baax jaajëfal leen tamit ci teewlu bi a banta a xibaar yi buur na juróom-ñaari waxtu ci ngoon rédaction bi RDV dina fi ñëwaat ngir jukki leen li fi gën a fës xibaar ci kàllaamay tubaab nasaraan lay doon waaye laata loole di leen ñaanal kenn dal ak jàmm te di ko sàkku ci yéen bu leen toxal woy leen di ànd ak suñuy programme li gën a neex mu ngi ñëw alhamdulilah